ñu julli ci rasulullah sallallahu alayhi bi ma ko Fatima waxee démb sama rakk bi moom ma woo wax ma ko nalaw ma ba bët set ma ne Fatima dama ko ñëwee ndax di ko tuubal moo tax ma ñëwee ko ndax Oustaz Alioune Sall tey su ma nekkaatee jullit ba léegi kan yàlla yow la fi amul conférence booy def tëgg ma def damay tëdd nelaw sax nga génn télé bi xale yi ñëw yem ma ma ma ma toog Oustaz à la télé may la su amee rediffusion rek naa ko seetaan xam naa su ma koy seetaan YouTube waxtaan boo def maa nga ci su boobu ma xëyee maa ngi lay déglu yaag oustaz Alioune Mbaye ak Maodo ak Maw ma kii ak euh, Alioune Mbaye amul amul waxtaan boo dul def te fekkewu te dégluwu ma ko youtube bi maa ngi lay déglu Achoura maa nga fa bi ma commencé dem ci sa Achoura boobu tante bu ndaw la woon te ci stade ba ma topp la Ashura bu nekk maa ngi dem premier samedi gàmm maa nga fa amul waxtaan boo dul def te du ma dem sama rakk ji damay ñoo nekk oustaz der nangam ak nanga ak nangam su génne tari mu daal di ma woo Margo ma ko ah, mu ne ma sa oustaz génn na ma ko déglu sama rakk bi nga xamante kii moo topp ci moom tuubul de wante waxtaan boo de wax na nettali laa ko ko oustaz yal na la yàlla suñu borom bi fay yal na yàlla suñu borom guddal sa fan yal na yàlla suñu borom yokk xam fi ngay dugg fekk si ñu yàlla na la jig mu doon njëkkan ci yow oustaz wax na ko de dina metti de wante jàppal ndax dañ lay xeex man su ma déglu woon bés boobu rajo bi kon tey ji delluwaat naa wante rajo bi ma déglu moo tax oustaz dellu ma yow sa baat moo ma tey ci moo ma tey woon ci diina ji ba léegi tey jii mun naa ne jumaa yu ma julliwul Dakar bariwul ndax yow sama waa kër yi bu tàkkusaan xasee jot timis bu xasee jot su ma wàccee timis kenn du ma woo parce que xam nañu bu timis xasee bu ma duggee ci jàkk ji balaa may génn gée ginnaaw yàlla yow yaa tax yal na la yàlla suñu borom bi fay te yokk la yokk xam-xam gi bàyyi la suñu kanam ba ca kanam a kanam. nu mu ko waxee nag ma sama bos metti woon na torop moom bosam sax moo tane ndax man juróomi at ba jëm fukki at ma samay mbokk. sama jëkkër rekk laa gis am naa fi ñaari bant kenn teewu man dong ak ki ma tuddee woon mi sama yaay jëkkër tey génn na àddina mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax tey ku ma xam parce que dama ko doon tiitaroo nëbbu ma ko woon dama ko def ba pare di ko tiitaroo ndax dama ko mës a bëgg sama papa jabaram bu mu mës a am jullit la woon bu daan dem di naafel dam ko daan topp siy wóor ma ne damay wóor même bu may làqutu dem di lekk sax dama ko daan def moo tax man sama tuub man musuma ko nëbb musuma ci rus fu ñu nekkee entre famille fête fak yooyu sàngara bi duma ko jege duma ko laal ba ñëpp dañ ma ko xameloo Fatima nag ba ma ko waxee yàgg na si junj nag su ma ñëwee mënuma tàttare yow ni ma kontaanee si yow fu ñu la fekk yaa ngi julli man ko sant yàlla rek lu ma sonn sonn dinaa julli ba temps yële paase mu ne ma lu dina am liy xew de pour man sax leneen lay wax waaye barki dem bu mu ñëwee ne ma dafa damay tuub damaa tiit ba lu jóge si man man dama ko doon xool rek mi ko Fatima li nga wax ni dëgg la mun ne ma dëgg la kañ ma taxaw di ko xool mi wax ma di ko xool ba si yàgg rek ma jóg laxasu ko nag sama rongoñ tuuru mel ko yal na ko yàlla eggale ak jàmm ak salaam te yàlla may la kàttan boo jullee may la wér-gi-yaram boo jullee te lépp nag comme li nga waxee mu ngi si internet bi ndax man maa jàng sama bopp te kenn jàngalu ma maa jàng sama bopp ndax dama koy gëstu ci internet bi damay xool naka la ñuy jullee ak yëpp si internet bi léegi kay macha allah alhamdulilah mën naa jàng sama bopp mën naa defal lépp sama bopp kon moom tam xam naa ne si tànk boobu lay kii rek man sama yat laa yore moom fu ma ko fekkee dinaa ko doo dem mu dem jàpp julli ci ngërëm yi di soññe yàlla yàlla kon ñu def mooy jublu ci tuddal ko baati seede yi bu noppee li ci tege ñu teg ko ci nun ñëpp ay ak moom yëkkati sunu baaraam bi defal nii sa baaraam neel ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah ashhadu ashhadu an an laa ilaha illallah إلى الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله fii nga toog nii Abdoulaye Dodo maa ngi yow yem képp kaay mu Allah Allah Allah

sax na ko tey <coughs> yaa ngi juddu ci diine yéen ci bokk yam nag dégg naa ñu naan la Fatima dafa mel ni kon Fatima nga tudd woowu tur jaru soppi yoon jàll Mouhamad caatam ma Fatima la tuddoon te moo ko ko tànnaloon baatu Fatima mooy kuñ goreel ci ci sawara baatu Fatima mooy kuñu goreel ci sawara Fatima lii ma la ko la lii tappi la boo jullee ak kon lii téere boo fere it oustaz waaw waaw kon tur bi jarul soppi sant bi jarul soppi Fatima mooy ku ñu goreel ci sawara yàlla na nga ca gore ci sawara nu gore ca yéen ñi fekk jotaay biir lu ci runti bi wax yàlla nañu ko am mooy ku fi jóge ci noonu ko ne ne borom jéggal na ko bindal tuyaaw muy ñib auzu billaahi mina bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi tedd ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi ñu amoon gan ci lislaam di sunu mbokkum jullit mu doon dugg ci lislaam di soxna Fatima doon dugg ci lislaam tey ñu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal tawféex muy tuub goo xam ne tuub bu amoon seede la ñu ngi ko def ci kanamu Oustaz Alioune Sall ci kanamu mbooloo mi yëpp di soxna Fatima mii di suñu gan ci lislaam tuub tey jii ñuy ñaan suñu borom tabaaraka wa taala defal ko tawféex mu mel ne la alxuraan waxoon rek qul yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum alaa na'buda illallah wa laa nushrika bihi shay'an kon ñu ak moom ñun ñëpp ñu yem ci lislaam tey jii tuub na nekk jullit kon ñëpp yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala yëkkatil ay martabam yàlla defal koy tawféex ba yéene ji am ci lislaam yàlla ko sunu borom wan. soxna Fatima kon xam naa ne dañ koy jox euh, kàddu gi mu wax lan moo ko motivé rek ngir mu dugg ci euh, l'islam. kon mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak Aliou Imran kii mooy soxna Fatima moo doon dugg ci l'islam tey jii fii ci këru kër Oustaz Alioune Sall soxna Fatima ñu ngi leen siyaare di la laaj ban yëg-yëg nga am bi nga duggee ci l'islam. Ah, xanaa mbégte rek waaw mbégte ak contentement bu rëy rëy di dolli sant bu baax a baax a baax waaw lii lu mu yàggoon bëgg la. waaw damay dolli sant yàlla bu baax a baax rek di ñaan sàkku ci yonent bi Seydina Muhammad mu sallal ko mu saxal ko sama xol bi bu baax a baax a baax a baax loolu rek laa amoon lu ñuy wax waaw. Mhm. lan moo motivé sa xol ba nga yëg da nga war a dugg ci lislaam ah, dama ko yàgg bëgg ndaxte man sama yaay tuubeen la ah, sama yaay tuubeen la te tamit lislaam diine jàmm la daal waaw ni ma ko yëgee boog diine jàmm la daal. waaw tax nga tànn Oustaz Alioune Sall ngir mu tuubal la. dama koo géntoon. dama ko géntoon ma ñëw ba ci moom wax ko ko waaw dama ko dama ko géntoon mu may tuubal moo tax ma ñëw ba ci moom. Euh, jërëjëf euh, soxna Fatima euh, wax na yëg bi ko tax dugg ci lislaam wax na yëg-yëg bi nga xam ne moo tax a ñëw bu fii kër Oustaz Alioune Sall tuuba bi kon yàlla na leen sunu borom bi nangul te yéene boo am ci lislaam yàlla na ko yàlla defal. Euh, ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom sàmm la aar la muy suñu mbokkum jullit dugg ci lislaam tey jii ñuy ñaan yàlla na ko yàlla sàmm soxna Fatima yàlla aar la ba yéene ji nga bëgg ci lislaam lépp yàlla nga ko def xanaa njoola nga sant mbooloo mi nga xam ne moo fi teewoon. waaw di leen sant ak di leen gërëm bu baax samay dëkkandoo yu baax yi ñoom ñëpp jàppale nañ ma wax dëgg yàlla ku nekk ñaanal nga ma ñi ñëw ak ñu ñëwul yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a ku nekk daal li nga bëgg sa daal yàlla na la ko yàlla defal ba mu mot sëkk te mu doon lii gën ci yow waa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. ñu ngi ak uh, sunu yaay soxna Amy Seck fekkoon tuubu soxna Fatima bi uh, ñu jox ko rek mu yëkkati ay kàddu. ah xanaa di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di kontaan ci li ñu fekkee ci tuub bi ndax uh, soxna Fatima mi sama rakk la sama xarit la sama lépp la. biñ ma woy démb ci guddi na ma Fatima dafay tuub tey comme ni ma ko waxee rek nalu ma bërsët ndax li ñu wax ne oustaz Alioune Sall moo koy tuubal moo tax muy loo xamante ne lu rafet la di di ci ko tuuba tamit oustaz Alioune Sall moom itamit muy euh, nitu diine koo xamante ne tey ji su ma nekk ci diine ba léegi ginnaaw yàlla moom moo tax ma nekk ci ba léegi ndax euh, déglu ko moo ma ci téye bu du woon moom dellu woon naa bu yàgg mais yeewu suba taal rajo bi rek dégg baata moo taxoon ma toog moo tax ma toogaat ba léegi ndax amoon na moment boo xamante ne c'était le lendemain laa waroon dem ci prêtre bi bu ma delluwaat sama religion mais di ko déglu di ko déglu di ko déglu di ko déglu tey jii fuy lu ma munti def buy ne allah ko akbar teg naa ko su may togg sax damay fay bi dem julli ndax moom moom moo tax may jàng sama diine di jàng sama diine di jàng li ma xam yëpp ginnaaw yàlla Oustaz Alioune moo tax fu mu conférencé dem na Ali Imran fu mu ah, fu mu wootee dem naa xanaa mu woote fu sori foo xam ne mënu fa dem moo tax du ma dem mais amul fu Oustaz Alioune di woote te dawam amul. Euh, sa mbokk mi di soxna Fatima dugg ci lislaam yan dénkaane nga koy dénk. li ma koy dénk mooy mu gëstu diinam kon ni ko Oustaz waxee te waxtu bañ koo raw fu njàppam tojee na njàpp na jàpp teg ci ñaari rakk. loolu bu koy def du gis dara lu ko jaaxal bu koy gëstu di jàng fu julli jotee mu julli du gis dara lu ko jaaxal te bu mu na fexe ba mën ayatu kursi dina ko daq lu bari loolu maa ngi ko déggee ci ustaas mi moo tax ayatu kursi man mooy sama xarit mooy sama téere bu toppee lii nga xamante ne moom la koy ustaas di wax du juum ci dara te mu tey mu dem ci ñi nga xamante ñi xam muy laajte ñu di ko wax muy gëstu pour mu xam. Euh, jafe-jafe yi nga jànkonteel yow bi ngay doog a dugg ci lislaam euh, moom yan conseil nga koy def ngir bu ko jafe-jafe yooyu gaaree xam fan lay jaar pour euh, régler ko. bu jafe-jafe yooyu ñëwee na na dellu rek ci yàlla na dellu ci yàlla rek te xam ne yàlla moo koy teg jafe-jafe boobu moom du ko teg boppam yàlla moo koy teg te muy seet ñi nga xamante ne ñoo. ñoo ko gën a xam diine heure bu gisee jafe-jafe na woo oustaz bu ko woowee rek dina ko tegaat ci yoon man jafe-jafe bu ma am bi mu ma dalee aw moon ku ma teg ci yoon gisu moon kenn ku ma teg ci yoo mais su koy woo rek woo ñi nga xamante ne ñoo xam li nekk ci diine du du difficile ci moom du jafe ci moom na leen jege bu leen jege rek jafe ci ñoom di ko ñaan yàlla suñu boobu defal ko jàmm yàlla bu ci am benn jafe-jafe bu ci gis dara lu ko jaaxal Euh, nu mu ci duggee ci bisimilahi rahmaani rahiim mu àggale ci alhamdulilahi rabil alamina yal na ko yàlla suñ borom bi defal jàmm euh, leeralal yoonam leer leeral xelam bi ba mu mun a jàng alxuraan beeg yooyu yëpp yàlla baax bu mu ci gis benn jafe-jafe moom daal toppal ustaar te nga topp ñi nga xamante ne ñoo xam diine bi boo leen toppee rek doo am benn problème hmm? man mu ñëwee aw moom ku ma teg ci yoon wante yàlla dimbali ma rek ma dégg baatu ustaas rek ma déglu si waat yàlla baax jërëjëf euh, jërëjëf euh, jërëjëf euh, soxna si ñu ngi lay sant bu baax a baax ci témoignage bi nga def ci soxna Fatima mi nga xam ne moom moo doon tuub tey ci ñaan yi ko ñaan wala ñaax yi ko ñaax ndax alxuraan dafa wax ne ahasiba naasi an yatraku an yaqulu aamanaa wa hum laa yaftanuun suñu borom ne da ngeen a jàpp ne da ngeen naan gëm naa rek ma bàyyi leen faaw dinaa leen fitnaal pour gëstu ngëm googu ndax dëgg la ci yeneen déet kon soxna Fatima ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax dugg jum dugg ci lislaam ndax lii dafay wane histoire boo xam ne xewoon na bu yàgg ndax keroog bi Seydina Umar ibn Xattaab di dugg ci lislaam keroog ba mu ñëwee Daarul Arxam fekk fa yonent bi salaay salaam keroog bi mu duggee saxaaba yëpp dañoo kabaar ca kaw ngir yëg ne kon lislaam marqué na beneen point bu am solo kon tey ji yëgaat na ne lislaam marqué na beneen point bu am solo di dugg gi soxna Fatima dugg ci lislaam di sunu mbokkum jullit te jullit jullitay mbokkam jullit day bëgganteeg mbokkam ndax yonent bi ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li si sa ngëm du mat mukk loolu li nga gëmal bëggal sa bopp loolu nga bëggal sa mbokk kon loolu mooy sababu lislaam mooy diine solidarité diine jàppalante diine jàppoo diine doon benn kon soxna Fatima dugg na ci diine joo xam ne ku jaaxle ñu jàppale la ci côté yëpp kon yal na yàlla defal la tawféex yal na yàlla leeral xol yëpp euh, jataay bi képp ko fekk yal na suñu borom defal tawféex yal na nekkum njëggal ci ñun ñëpp. yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal ndax jataay la boo xam ne bokk na jataay yi nga xam ne ëllëg dana nekk seede ci kanam suñu borom kon yàlla ñu yàlla defal tawféex di ñaanal kilifa gi nga xam ne moo ko teewoon di Oustaz Alioune Sall yàlla na ko fi yàlla yàggal ba bépp naal bu mu am ci lislaam yàlla na ko àggale yéene ji nit ñi am ci moom ak yaakaar ji yàlla bu mu tas yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fekk cliquer incha allah da nga mën a